magie moo leen di may kooru biddew ah, mhm. yow de sa lasagne jaral na ma kilo pont ci ja yàlla bu mu xaw a jege bët ba di ma luqi foofa toj <laughs> far yow rek ah. doo ay foo waaw ah temps yi moom dama kontaan torop torop torop si yow ci lan noonu ndaxte depuis bi nga commencé génn ak daan ba léegi waaw damaa remarqué ni dangaa gën a jonga ma déggal loolu <laughs> xanaa moo jigéen bu bëggee changer comportement dan maa ko nopp gis nga ci benn coiffure laa dem ni ko ah. kubal ma bopp bi ma def yëfu xale dan maa ko noba noba nob ba sagar xeeñ maman moom tane na tane na dafa mel tane lii de démb. saalitoon nañu nag. yaayam ak pàppam de. ak man mi sax kay. ñëpp jaaxle woon yaram bi mel na xal. ndeysaan mais yax yi la nag xam nga xale buy feeñal moom. foofu yooyu am ci. waaye ci ñaar mënu ci ñaar aussi papa jeeg yaaji moom. dañuy dañuy dañuy dof xam nga doomu taaw moom. <laughs> lu ko laal lu rek da ngay da ngay tëb. dëgg la kay man mi noonu laa meloon ak sama doom bi. sama mm. taaw bi. bu mosaan yuuxu rek ma defee ne dara la. wallaay <laughs> eh, kon am nga soxna. waaw amoon naa soxna. asuloo daa gaañu. daa gaañu daa gaañu waaw. na ko yàlla yéen. amaatoon naa fi keneen sax. yow mi dafa gaañu. Eh? moom it daa gaañu. na ma sama yaay cere da dama koy rendi ku ma ko xañ ma rey la. Ah, bi dee xaaral ma ñëw ñu yaa ma jàmm la. waay waay dana la ca sàmm te defoon tamit waaw. waaw moom lu fi yegg. jàmm la du jàmm dan amane na apporté na yow dama bëgg nga écouter te nga garder lu xew dan wax na la boppam. waaye gaaw ma ci lan. yëg nga ne amoon na jabar. waaw amoon na ñaari jabar kay. ana ñaari jabar yi. dan gaañu. ñaar. waaw. dan dafa am gaaf. eh ay doo wax jàmm. dafa suul ñaar ki mu mujj a suul juróom benn weer rek la def moom. waaw léegi mënu sama yoon. yaa nar a nekk ñetteel bi. ay du ma ko nangu. yaay yàlla du bind ci fanweer rey ci fukk ak ñett. yaa ngi may dégg su ma waree gaañu damay gaañu. waaye du doon dande dande du la rey. dande dama koo bëgg de. ay yaa xam mais doon nañ sëy. Eh, boo ko laalee laal sama karaw bakkan. waa kay gis nga ki seet ki trouve ki trouve ki énerve. ki énerve bagaar kañ nga xamante dan ba bëgg di la fi am. bagaar yaa kon bagaar dan moo mën a gën loolu laa bëgg nga def ko sax ah, laa su ma xamee bàyyi dama bàyyi. maa ngi yóbbu foofu. waaw kay ngay niroo demal. doo leen sëy de. duma la ko may sa nijaay du la ko may man xale yi léegi jaaxal nañu góor jaral na la sa ndey. <laughs> maas gan nuy na la. ah ñëwoon na fi. ñëwoon na fi. lu na ma xaar rek. dafa demoon benn wàccee kaamil nag ay xaritam yi ñuy wàccee kaamil. d'accord d'accord moom la demoon mais nee na nuy na la dafa yàkkam di ma doon dogoo. ah macha allah. macha allah de nii nga. serviral yaay. waaw baax na la yow la gën a jege. vidéo dina gën a nes nes yi seen safal magie si cafka bi ngeen ko mës a ak mbubam bu bees maas bi laay balaa bii lan laa ko njëkk toggal incha allah hmm, comme téye naa ko ndogg ba sonn mu bañ eh xale jàngal ma ko ma toggal ko ko ba mu neex foofa amul benn waaw kay maas may ma vinaigre maas faama wax na la boppam. wax ma dara. waxu la dara ci dan. non waa jàmm la. du jàmm ci sama boode. dan de ku mu suul lay wut. hi suul. tus si tuuseel feer ndax mu dëgër. bois day damm. kenn dafa mës a tuuse feer. gis nga ñaareel bi mujjee suul. Mhm. juróom benn weer la def ak moom. ñetteel bi nag bu ñëwee. du def ak moom semaine. man nag du ma ci dugal sama doom. dan ci boppam a aay gaaf. ay du ma ko may jabar. yow wax dina rafet. jamais deux cent trois. mais yaay yàlla lépp yaay biddaa la. merci yàlla mooy rey. Mhm. faama ba bële mi ngi wut jëkkër amu ko. waaw ki bëgg na ko yaay nañ leen may ñu sëy. rafetal ko sax wutuma jëkkër du ma sëy tas di xaar jëkkër. loolu la rafetal ko. nijaayam ci boppam du ci ànd te li dal dan bu la daloon yow maas doo am jabar. waaw. man nag damaa bëgg sama doom ji yónni ko yàkkamti ko du ma ko dugal ci dara. danga maa yàq mais du ma mës a ñëw maa ngi ci loolu ay bidaal gis nga yàlla du bind ci fanweer rek ci ko juróom. yaa ngi dégg naa ko bëgg na ma te xam nga du gën a pire yow xam sama kër nijaay. waaw mhm. ah, kay ma fa dan nan ma ko may rek man xoolal naa sëy tey suba gi ma gaañu ma savouré ko su directement na laa jëm nit ki na ko may ci mu bëgg. mooy yoon na ko may ki bëgg. Mhm. bu la ko jaralee ay ca. pour yaay na savouré ngay savouré ci àdduna. ndax lan dangay dee yooyu yaa yor bakkan léegi boo dan xaw ma keneen de waaye boo dan kii ku mu lay wut waa léegi naa dese naa dee ba ba muy moom waa kay sama biddew yi ngeen tey nag lasagne de laa leen andi est-ce que xam ngeen ni lasagne de dafa riche waaye nag du tere ngeen yokk ci seen salade ak seeni tomate ndaxte loolu yàqu ci dara kon boog nañ leen dem. di soxla benn kilo viande hachée xobu lasagne 100 grammes farine oignon vert 50 grammes beurre thym 150 grammes fromage râpé 300 grammes lait concentré non sucré 300 grammes tomate fraîche bu ñu xolli benn magi saf-safal ak benn magi tablette jëral sa pool def ci sa yàpp pëndaxu jinjeer nokkosu laaj poobar ak persil mélange ko yokk ci sa temps Maggi saf safal sa tomate bu ñu xolli nga bàyyi ko ci taal bi lu tolloog fukki simili ci sa marmit def ci meew boole ko ak mélange beurre ak farine yokk ci benn Maggi tablette ak poobar bati ko nag ba mélange bi jaar yoon nga jëli ko ci taal bi ak moule bi def ci sa ay feuilles de lasagne viande hachée bi ak sauce béchamel pare nag nga def ci kawam tuuti lait concentré ak fromage. bàyyi ko ci fuur bi à 180 degrés lu tolloog 45 minutes yàkkal say lasagne ak sa salade ak sa ay rondelle de tomate fraîche na rees ak jàmm. Maggi moo leen doon may kooru biddéew